Lat Diop Sénégalais ñoo ko bëgg Lat Diop dafa jàppale nit mais nit ki booy jàppale da ngay jàppale ci loo moom te munoo ñoo gëmloo ne Lat Diop jub jubal jubbante la gëm man munuma koo gëm keneen ak keneen munu koo gëm yéen da ngeen yebaate yéen da ngeen da ngeen foog ne ne yéen sénégalais ay ay ay ay ay xar lañ wala ay bëy ngeen di dund ci ndoddu yow xam nga lu tax nga génn wax yow li ngay wax nii sax gëmoo ko. déjà xam naa dangaa toog dem ca waali sekk ba bége ba sa xol sedd xamoo loo def nga ne xaaral ma jéem a felli kóllëre at Lat Diop wax ci ay waxam ndax ñu xam ne ne maa ngi ci wetam gëmmoo leen ko gis nga yéen ñëpp a yem ay dunguru maan ngeen ku am nekk ci nguur ngeen ñëw dunguru ko dugal ko ci tooxu doonu après ngeen dem nekk ci seen yitte bopp yow géejawaay kenn dalaa gën a yelloo nga jàppale waa géejawaay limo mo len wan jeriño len askan bi dara. nabi Vision yene utiliser askan bi mais askan bi bu soxla soxlawee ken du len gis li ngay wax ni dang ko war a ca gox ga yow amo restaurant amo lenen ak lenen ba pare may wax muy wax waxu job di justifier lan ngay justifier defo nga alal bobu yi nga yor yep ya ko mom ke sa nga tedd avant ngay xam Lat job loñu koy waxee loñu koy leerale yeen kay Lat job deful genn len genn len ngeen marché.

doole ma senegal be dafa manke avocat manke wu fa kono avocat wam genné nako ko job liko duggal fofu dugal ci jëm bopam xam kep ko xamné né jël nga di nga bo len gokké ngeen am jàmm yeen paré guñu ci yeen yow waxay waxu la job bay sa xel mi ngay fawé te nga doxi dem uti liggéey. salaamaaleykum patriote yi topp Sonko bi la. vidéo bi vidéo ciob la ma ngoy dégg muy solal radio robu avocat ma ngi ñaan yalla patriote yéen ñi gëm Seydina Ousmane Sonko gëm projet bi gëm Sonko bëgg Sénégal laal leen kër yi na xonk képp kuy fan dofu Sonko bi na kër yi xonk maa ngi nuyu ñëpp kulukuma ah. di la wax ne yow bu sa ko Naby Vision. yàgg naa la wax na la yow xoolal sa kanam bu yaatu bii sa kanam bu yaatu bii di mel ni ndey rond point Sandaga ah. ak sa gémmiñ bii di mel ni poosu caaya yow xoolal say wax konte wu grand yow say wax yow say wax fii ci Sénégal yow yow tàyyil wax quoi yow tàyyil wax yow ñëpp xam nañ yow yaay kan yow ñëpp xam nañ yow yow yow yow yaay kan quoi yow ñëpp xam nañ ne markatu bun nga ci mar bun nga amee sa alal bi parce que yow nee nga bi ngay xam Lat Diop fekk na nga am oto fekk nga nga am say teraanga fekk nga am say lépp nee nga Lat Diop euh, fierté waa Géejawaay la depuis bi ñu ko tëjee ba léegi waa Géejawaay ñiy feebar a ngi feebar ñii xiif a ngi xiif ñii ñàkk ngi kon ne di ñàkk quoi yow tee en l'aise mais yaa ngi yàq der waa Géejawaay ne bañ tëjee Lat Diop ba léegi ñoom nekkuñu en l'aise quoi te ngaa wax sa bopp rek ak sa ndey ak sa baay ak yow ñi nga xam waa géejawaay ñëpp ñu ngi ci jàmm géejawaay laa la wax nii fu ko dàq amul géejawaay ñu ku leen gën a firi amul géejawaay ku leen gën a nekk si jàmm laa la wax yow la yow yow yow yow yow buus ak amul laa la wax da kat xotti sa cottu ndey yow mii li ngay wax nii du dëgg du dëgg li ngay wax du dëgg moo tax may ñëw di la xamal ne yow tàyyil wax yow say wax day gën a dugal Lat Diop mais génnewu ko eh, nice yo say wax say wax yow laa la wax say wax day gën a dugal Lat Diop mais génnewu ko kattal sa cottu ndey ñaw sa gémmiñ bii Naby Vision ñawal sa gémmiñ bii yow dégluwuñ la dégluwuñ sa lëfal ndey booy Lat Diop moom la ñuy dëgg ndeyam si jeel bi booy ba mu xam ne booy ba ay mbokkam ak ak ak ñi doon lekk xaalis riba bi mu leen joxal ba ñëpp sentir ne tëj nañ ndeyam si jeel ngeen di yow nga génn fii yow xam nga yow tekkatu xel nga yow sa mind bii gi nga sa Bob bi nga yoré sa bobu reuy bi yow sa lepp te xel la yow ñun xam nañ la bu baax dañ la maîtriser yi nga fi ndagaru njaay dafa xat ñun ñepp fi bokku deug xamanté da nga yaakaar na xamanté da nga xam nit ki rek tok si mu lay gis nga koy gis reer nga joom nga ndax nga nday sa dof songo moy wax ak yow ñun songo la top. jub jubal jubante bi nga wax ci la job la fekk baax da ngay kat sa nday aller retour la job jubul ñuko don top jubuñu la job jégué wul sax nday fu jégué jub fu jub nekk rek Lat Diop jubluwu foofu Lat Diop a gën a daqaar ndeyam si ministre bu Macky Sall yi dafa Lat Diop bi muy taxaw fii di saaga Ousmane Sonko naan dañu war a nangam tànn ci kaso bi coow li jeex yow foo nekkoon yow sa lëfal ndey yow yow buusa këcoob yow ak yéen ñii di défendre ñëpp fan ngeen nekkoon vidéo baa ngi ci internet bi di daw dañu war a nangam tànn ndeyam ñu noppal fan nekkoon yéene nag néeg la borom ma cay loolu tey mu doon yéene Seydina Ousmane Sonko bu sell moom lañ dëgg ndeyam ci biir jeel bi moom te dina fa yàgg trop nag te du ma gis si yéen ñii ñëpp kuy wax boobu ba dem génnee ji ko foofu dem leen. encore tëli baa ngi noonu yéen a ngi noonu pono yaa ngi fi taalukaay yëpp a ngi fi wàcc leen si tëli bi ngeen xool ku si wàcc si tëli bi ñun ñooy génn dëgg seen ndey man ku ma si gis nga wàcc si tëli bi dem looy wax dinaa ngembal sa ndey ba nga xam ne yéen ñun ñoo leen gën a ndey réew ñoo leen gën a ndey pare ñoo leen gën a kattan ndey ma rox ko su fukki junni yoon ak juróom-ñaar si banlieue bi ngeen dëkk ñu dëkk ndey si banlieue bi ci dëgg ndey ñànkatang bi fi mu gën ndey méttee ñun foofu la ñuy laay loolu laa nga xam ko waaw dëkk bi Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko jub jubal jubanti Lat Diop waa yow da ngeen a baax rek yow toogal foofu di wax rek. salaam Ketchup bi ñuy rey ñii nii quatre vingt bi leen di rey fan nga nekkoon yow benn nit lañ la tëjël nga génn di wax léegi bi ñuy rey quatre vingt yow fan nga nekkoon boobu yaa ngi ànd ak ñoom question la dama la ko laaj. Lat Diop bi ngay bi ngay bi ngay xeexal salaire bi mu doon fayee zóor yi waa géejawaay ak salaire yu seer yi mu leen doon jëndee. Naby Vision. fan la doon jëlee xaalis boobu daa dafa amoon société bu mu ko doon fayee wala ci xaalisu nguur gi la ko doon fayee est-ce que yoon la woon muy jël xaalis boobu di ko faye may wax état bu senegal Sénégal amnistie bi nañ ko dindi parce que loolu moom moo tax senegal yi ñu ëpp ci yéen ñëw ànd ak yéen. ñun ginnaaw raay fii nii am nañ fi suñu ñetti rak yoo xamante ni bi dañ leen a rey ñun baalewuñu justice pour ñooñu ñooñu leen rey lan moo tax ñuy bàyyi ñoo xamante ni dañoo jël alalu réew mi yàq ko def lu leen neex ñu leen di bàyyi lan moo waral loolu maa ngi wax képp koo xamante ni bi directeur nga wala ministre wala DG nga nga sóoraale sa njaboot nga sóoraale sa njaboot ndax booy def lu la neex jël say njaboot di yóbbu ay France di leen jëndal ay kàttan bu ñu la jàppee tëj la ci kaso bi dinañ am gàcce. sóoraale leen loolu bu baax a baax a baax te man gëm naa ni yéen ci jub jubal jubanti ngeen naa Naby Vision. justice pour ñi nu rey. Ketchup am nga ay question tontu wasalaam.